ñoo ngi taxaw fii ci barabu soxna jaaratulaay maam jaara Bousso muy soxna su baax su mag soo xam ne liggéeyal na yàlla ak rasulaay ni ma ko waxee loo xam ne gëw ne benn soxna liggéey na ko fanweeri at ñett mu liggéey ci liggéey bu réy bi mu liggéey yàlla fayee ko koo xam ne amul ci àdduna muy sunu sëriñ xaadimu rasuul moo tax màggal gi 76 ak léegi damay jóg ñëw ziyaare si ñëw ñaan. te at mu ma bu ñëwee bu ma delloo yokk moo tax suma mbokk yi bi ñu ñëwee ma ni leen nañ ko boole ci programme bi demaale ca frontière ba waxtaan ak douane yi policier ak gendarme yi pour ñu woyofal dem bi ak dikk bi ndax Afrique nekk genn Afrique CEDEAO nekk genn CEDEAO ndax loolu la président yi bëgg loi yi it loolu la ñu wax tey ji ñëw nañu suñu xol sedd na sëriñ bi teral nañu bim nu yëgee xéewal yim ñu jox barkeelu la mais ñaanal nañu dogul nañu gëm naa ne ñaan yi dina am kon santaat sëriñ bi di ko yóbbante ci xalif général des mourides sëñ Mountakha baayam di sëriñam ndax moom moo fi di xaar gan ñi président dina ñëw léegi ñun du jar ñu koy xaar daanu dajeeg moom ci yoon wi ndax danoo am liggéey te gis nañu président gisaat ko kon tey danoo ñëwoon ziare si ziare nañu dalal nañu teral nañu noo ngi ñaan yàlla sunu kilifa yi fi ne yàlla bàyyil nu leen fi yàggal seenu ko euh, seenu fan may leen wér gi yaram te barke bi nga xam ne moom la ñu séenu fii mu wesaaroo ci Afrique wesaaroo ci Sénégal te Sénégal élection yi ñu jëm mu nekk élection yu jub yu leer ku gañe gañe yor réew mi ndax Sénégal allah kulli alin kenn koy yor ci Sénégal yi yàlla na nu yàlla defal jàmm te ndam li yàlla na ko Macky Sall jël bu ñu wotee yàlla na am 70 pour cent ndax war na mën a nekk ci barke Xaadimu Rasul allahumma salli ala sayyidina Muhammadin